mooy cëslaay te yow wax nga sànq ni gis nga ni kii di Amadou Ba maam niñ ko taxawoo wuute na ak ni taxawoo ñiy wax opposition bi or dans un état de droit pouvoir les tenants du pouvoir légitimité bi nu am noonu la opposition amee également légitimité bu ñu toll mais boo seetee kii di Amadou Ba li ñu wax euh, grand Assane ni tournée politique mais du tournée politique du tournée économique tournée politique la Ah c'est-à-dire yëg nañ ni moom maam amuñu ci moom yaakaar kenn xamu ko nit ñi amuñu yéene voté ko ñu ni nañ jaay doole te ñëpp nërmel ñëpp mu wane ko par force loolu mooy mooy mooy bi waaye loolu c'est peine perdue xamoo tax gis nga grand san Adja nit ñi léegi dañoo yeewu lool te gis nga 2024 bii kenn ko mën a yàlla suñu borom ñu opérer un changement amu fi incha allah y aura un changement te changement bi du jugee ci maanaam ñi xam ni ñoo yore réew mi tey ñi yore réew mi tey wan nañ seen bilan dégg naa sànq euh, DG di di def allusion ci bilan yow ban bilan nga am yow sa lépp a nërmeelu yow sa éducation dafa nërmeelu ah université nga ne gis nañ ba jàngatul mm-hmm. yow sa santé dafa nërmeelu bis bu ne ñun jigéen ñi di ndaw ñi ñu ngi dee ci hôpital yi yow say ndaw gedd nañ sam réew bëggatuñ ca dara ana yow lan moo la dese matière première yi nga am nit ñi war a jariñ nit ña jël nga ko tayle ko waa bitim réew foofu mën nga na wax benn bilan moo tax ma ni la li xam ni moo xew ci réew mi maanaam dafa jéggi dayoo ci deux poids deux yu ba tax na dalalal sa xel ci ki njort ni Ousmane Sonko maam nërmel nañ ko nax na boppam ndax coolee bari waaye tey jii kenn ku ne xam na ni grand san coolee bari waaye fi mu toll nii Ousmane Sonko dafa jekku maanaam ñii xam ne ñoo téye réew mi ci wàllu yoon laa wax tey boo xoolee administration sénégalaise paramètres yëpp danga nga ko dérégler nous avons une administration au caprice en fait donc des acteurs politiques loolu mooy la vérité loolu mooy la vérité mooy li doon jooy sànq ci njëlbeen moo feeñ tamit ci wàllu DG moo tax ma ni la Ousmane Sonko tey la gën a ràññeeku tey la gën a mën a parce que yaa nga fa prison mën a yor jeu politique coow lee bari mi calcul yëpp ci Ousmane Sonko lay lay delluwaat. kon moo lay wan ni. Mhm. mbiram jeexagul. te ci wàllu yoon laa lu ko mën a tee nekk candidat amul fii ci réew gisaguma ko. d'accord.